depuis neuf mois université bu ñu ko tëjee ñun ñuy réclamer à ce université ñu ubbiwaat ko c'est parce que tey depuis boobu lañu lañ doon proposer xamoon nañ ne mën na nekk parce que tout simplement mesures yi nga xam ne loolu lañ doon wax ne loolu moo tey campus pédagogique bu ubbi ba gisuñu ko woon ba léegi aussi des na parce que conseil académique ci ci cadre campus social foofu lay wax donc euh, campus pédagogique autant pour moi donc campus social ba léegi euh, euh, dafa dafa des bokk bokk na ci li nga xam ne tey tey jii moom la ñuy gën a xeex parce que am na étudiant étudiants yi depuis lu yàgg ñu ngi fi di souffrir ñu ngi fi amuñu fu ñu dëkk ñu ngi fi amuñu ñu lekkee donc di débrouiller di nekk ci ay conditions yu difficile di continuer seen cours seen cours ci conditions yu difficile mais également di passer seen examen ci conditions yu difficile donc si si si loolu dañuy continuer euh, euh, di mener la combat pour que campus social ñu ubbi ko